waaleykum salaam rahmatulah. yaa ngi si micro Keur Massar point info ñu ñëwoon tey waxtaan ak yéen si par rapport ak insécurité bi situation d'insécurité bi nga xam te ñu ngi koy nemmeeku si dëkk bi ah, ñu bëggoon xam yéen euh, lan ngeen si euh, xalaat. ñun ne nii euh, si jàmm fii liñ si am moom wax dëgg yàlla ñu jël parce que wax dëgg yàlla moom dëkk bi moom xam nga rek fu mu ne nii <laughs> dafa sambara comme géej. parce que ne nii fii moom neexatul moom wax dëgg yàlla dafa bari ay agresseurs fu ne nii même boo feebaree sax dootoo amati li ngay kee parce que ku lay jàppale amoo ku lay jàppale dégg nga léegi il faut nga góorgóorlu utal sa léegi su ñu taxaw nag ñu yaakaaree nguur gi nguur gi nguur gi fii ngay dee war a fay luwaas bugg a euh, nu mu tati joxe dépense te nangoo liggéey fa ngay jëm ah te bugg a def yeneen yi tamit te amoo xaalis fa ngay jëm il faut ñu góorgóoru wax dëgg la ñu góorgóoru xam nga nit ki moom il faut nga liggéey bépp ngay dee waaw. d'accord fii nii bëri ngeen li ngeen fi jàkkoonte ay cas d'agression ak yéen aussi euh, waa koñ bi yéen disposition lañ jël pour xeex loolu. ah loolu moom wax dëgg yàlla salte buñ si mënta gis xale góor yi ak lépp dañ siy taxaw moom. waaw waaw fii mi wax dëgg yàlla même sàcce suñ ko jàppee fii mooy pare na moom wax dëgg yàlla fii moom wax dëgg yàlla ah <laughs> am na de ay bandi ni comme ça léeg nga gis léeg-léeg suñu yëngalee fale mbobos ñu jaar fii ñu taxawaalu fii mais booy suñ yegee rek. mooy encore demati nañ waaw. Ah, da am comité vigilance bi quoi ko. waaw waaw am na ba yeneen booy yi yëngu fii par la nuit bon même si wetu côté terminus la mhm. foofu moom wax dëgg yàlla am na ay gardien waaw fii moom am na ay gardien moom léeg-léeg dañuy xoolaale waaw. dañ nañu dem di di di di maçonnerie maçon di outil dara li ñuy def ci sa poste yow tay bo sonné amna mais <laughs> nit voilà. Ah, lay ñu lay ah, par euh, situation bi insécurité agression am barki démb moo si mujj ñu faat benn waay fële euh, si Kër Massar Auchan bi mais en tant que jeune naka nga gisee situation boobu noonu. waaw d'ailleurs maa ngi lay fay di la jaajëfal bu baax a baax li nga wax noonu effectivement bëri na fi bëri na fi lool ndax à l'heure actuelle comme bu fekkente ne dëkk mu ngi màgg population bi di yokk li nga war a mën a gën a def moom mooy nekk veiller ci sécurité nit ñi tout d'abord balaa dara xew benn instant bi. parce que loolu nga wax noonu man tout récemment maa ngi Massar mais keur Massar à l'heure actuelle reyna na go goo souvent mbir dina am sax do yëg instant biñ tonni amna lolu nak benen instant bi lima ci gis à l'heure actuelle comme solution mom moy nekk gaay ñom ñoom seen wàllu bopp ñu fexé ñom ñi ñu jité ñu outal ñu sécurité bu doy c'est ça. waaw loolu laa gis à l'heure actuelle nañ ñu utal sécurité bu doy ñoom ñu ñu jiite mooy wa gouvernement bi ñoom nañ ñu utal euh, sécurité bu doy pour population bi. voilà c'est ban lan nga xalaat ne moo waral loolu noonu boobu noonu insécurité bi agression yu bari fii meurtre yow pour en tant que seen naka nga gisee loolu noonu lan nga gis ne moo waral mooy mooy cause en fait. effectivement waaw bon li ma gis ne moom mooy cause bi ci sama xalaat bu gàtt moom mooy nekk euh, tey jii nii. buñ démé ba population bi di yok soxlay bari na problème yi bari na c'est pourquoi cela motax gaay gars yi tey ku ci nek da ngay japp ni tous les moyens sont bons pour nga wara mëna mun décarcasser wu am sa belle vie tu vois kon donc lima gis exact mom moy euh, tey jii nit ñi dañu bëggu belle vie mais il ne veut pas travailler c'est pourquoi cela tey jii nii euh, agression yi tout cela mu bari fi ben mois bi mais fokk nit ñi yemale seen i bëgg-bëgg mel comme ni jullit di mel effectivement soo ko defee di nga mun noppalu voilà. ok gis daal dans dañoo bëgg a tekki te mu nanguñ liggéey daal jeunes yi dañu bëgg lu yomb quoi moo tax ñu dugg si ay saa teg agressif. non c'est ça c'est ça parce que tey bu fekkente ne dama bëgg belle vie dugg ci ay détails yoo xamante ne maîtriser wu ma dans ce cas euh, dina dugg ci leneen loo xamante ne waruma cee dugg. lii lay jur ah, moom agression këf portable nit sagam tu vois yooyu yëpp dafay am man tout récemment tay on m'a sollicité un problème bo xamantene avant tabaski deux jours avant ben gel bu dëkk terminer terminus Kër Massar ñu jël portable am jël cent quarante millions instant bi il est à la recherche de ce portable il y en a tas de problèmes yoo xamante mu ngi mais instant bi ñu toll bon comme les ma pour. ñu jóge ci li ni mel euh, man damay joxoñ baaram état pour ñoom ñu jàppale ñu ci sécurité Kër Massar parce que en ce moment ci doo doonatul commune mu ngi ci département te day gën a màgg. d'accord mais ñu naan ne am ñu ne euh, genre police ak gendarmerie mu ñu sécuriser fépp lan ma gis euh, ne yow population bi war nañ si mun am benn taxawaay pour insécurité bi wàññeeku si Kër Massar. waa xam nga population bi ñoom duñu fajal seen bopp.

éducation bu baax dans ce cas ñom seen wàllu bop buñu ñu ci mbéd bi dinañu def lo xamante lu nice la. li li solution man li mo gis mooy mooy ñu renforcer équipe bi renforcer effectif bi ñu moy gën di mën def patrouille aussi tamit euh, sécurité mënul doy carrément carrément mais Kër Masar mom c'est à l'extrême donc population bi aussi ñu jëlal seen bop seeni devant. c'est pas parce que dañoo war a def justice seen bopp mais bu ñu gisee lenn loo xam parce que koñ bu nekk xam nañ ña dëkk ak ña dëkkul su fekkente ne am na ku fa nekk di fa nekk te na leen def li ñu war a def parce que vraiment ngay xëy yaa ngi ci risque ngay wàcc yaa ngi ci risque te loolu doxalul am réew bu kanam wax dëgg yàlla. la nga gis loolu mooy solution bi pour ñu éradiquer cette insécurité bi nekk si Kër bon solution mooy comme li

injustice aussi daf ci bokk injustice parce que bo nek ci deuk di liggéey ba sonn mënuloo am te ngay def li nga wara def yépp psychologiquement boo parewul pour mën nga faj pour nga mën a sa mère psychologiquement su fekkente ne parewoo mën nga bëgg fayanto nga dem lor sa compatriote bo xamante c'est un concitoyen bo xamante deful dara mais li nga japp moy na def dara rek pour ñu mën xam. Hmm, lolu la. ok waaw merci hein, monsieur Adama Sarr. Hein. merci beaucoup wa ok merci. <laughs> d'accord d'accord am na ñaari jeune su ma sañoon dañ fiy wàcce ay sécurité yi doy waaw ndax xam nga li neexut guddi nga war dox ba heure bu la neex doo ko mun dox da ngay yi nangu sa alal mën nga see ñàkk tamit sa bakkan te xam nga loolu jog rafetul suñ sañoon moom dañuy jóg si xale bu baax waaw loolu moom man loolu moom sama xalaat lii ñàkk liggéey tamit bokk na si waaw ñàkk éducation tamit na waaw ndax xam nga sa sa saako ceeb bu deful dara mënul taxaw loolu tamit bokk na si pour loolu wàññeeku ah xanaa ndax maire moom xam naa wax dañoo wax a wax ba soon xanaa ñu dimbale xale yi ñu ñu ñu mun a dem liggéey loolu laa si gis ñu dimbale xale yi xale yëpp am liggéey su boobaa dina mun a wàññeeku si réew mi